Les tamit ci réseaux sociaux yi ak ci médias yi le 17 novembre dafa am ño xam dañuy menacer wa la justice justice bi bu joxee décision ñom dañuy yak Dakar ndax yeen di ngeen ko nangu état du Sénégal du ko nangu képp ku fi jog bëgg perturber la quiétude des Sénégalais particulièrement des Dakarois état du Sénégal dina ko jëflante ak yow waaye ñun waa Ndakaaru tamit du ñu seetaan kenn ku ñëw di perturber suñu quiétude wala di yàq ay bien wu jàmbur wala di fi ma def naka su dul noonu réew mii di Sénégal dañu war a jox cër justice bu defee lu ñu neex ak lu ñu neexul ñu def suñuy voie de te seetaan justice mu def li nga xam ne mooy yoonam waaye képp ku ci bëgg a boole leneen loo xam ne yoon mayewu ko état du Sénégal dina jëflanteeg yow waaye ñun waa Ndakaaru dinañ jëflanteeg yow ndaxte du ñu nangu capital loolu nag laa bëggoon leeral